mais chaque jour plus de 500 ah. depuis vendredi ba tey après dañu prolongé mhm. pour ñu daw. Mhm. mais comme li may wax chaque jour rek. foo gis fu ne am na ñuy gàmm ak ñuy ras dem. te muy dëgg. xam nga ku ñuy jiiñ dëmm ngay seeñoo yeelu lii yéen ñëpp a yem rek. daa dëgg parce que bu ñu nee scooter. Mhm. man mii di wax ak yow ak samay morom yi nga xam ne dama leen jiite. am na ñoo xamante ne tey seen i parents dañoo dajale fortune jënd scooter jox ko ne ko resal sa su kër gi. loolu gis naa ko ci ci groupe bi. am na ñoo xamante ne tey ci lii leenu yaakaar pour fay seen kër yi ñu dëkk. Mhm. am na ñoo xamante ne tey ci daw bi ñuy daw nii dañuy génn dem am benn course yónnee kër ga gaaw dépense pour ñu mën a taal. dëgg la parce que kenn ku ci nekk lu neer rek da nga koy xool sa bopp ñun ay ndaw leen du ma ne kenn kaa ñu génn xeex réglé wul dara. Mhm. du ma ne kenn kaa lañu génn ñu marche reglewul dara waaye sañ na noo ñaan ñu bàyyi ñu xel bu ñu a bàyyi xel ba bàyyi xel sama xalaat laay joxe. ñu utal ñu ay livret sax comme taximaan yi lu ñu am soit nga faye ko impôt demee wala sa mairie bi gouvernement bi am ci benn ressource bu mu am. benn recette ñu régulariser voilà mhm. nga xam ni dañ lay defaral benn carte sa foto nekk ci sa tur sa sant fi nga dëkk ak lépp nekk ci. ñu xam ne yow da ngay livré. nga existé nga existé par exemple tey bu décret yi amee ñu génnee ko ñu ne képp ku yoru scooter à condition ñu koy jox tamit koo xamante ne scooter am dañ dafa am matricule duñ ko jox kenn koo xamante ne sa scooter amul amul plaque parce que ñaawteef yi ñu koy def ñëpp mooy seen scooter yi amul plaque yor ay cocktail molotov muy taalee bus wala ñu jël cocktail molotov sànni ko ci kër jàmm wala ñu làkk dara lan la ñuy wax scooter yi waaw man mun naa cee seet damaa yor vélo wala ma yor lal scooter laa yor bu ne scooter ñun ñëpp ñoo ci bokk yem mais léegi bu ñu bu ñu utee loo xam te ne régulariser nañ ko tey voilà ñu ne ñu kat léegi lii leen leen defal ñëw leen ngeen fay ko at bi 5000 la wala at bi 10 000 nga dem jënd ko soo ko jëndee bu décret génnee nga liggéey ak xel mu dal ku la arrêté nga génnee loolu wan ko mais dañuy jàpp sa scooter jox la tant que décret bi jeexul après doo jël sa scooter nga nekk per de famille man depuis vendredi ba tey daw ñu ñoo la fay 6 ñaata ngeen def. non duñu fay. ah bu ñu ko jëlee nii rek dañuy xaar décret bi jeex nga dem mais dañ lay jox benn note. fooy boo xam te ne dañuy bind sa tur bind sa lépp bind si sa numéro scooter ak lépp bu jour bu jotee loolu jar na wa parce que les gens dañuy wax ne dañuy faral di wax ne dañuy fay amul fay man man man jàpp nañ ma. bu dee décret la bu dee décret la. man bu dee décret la waaw nag dëgg dëgg da nga koy wax bu dee décret moo génn. mosuñu ma fayloo. man gendarme yi jàpp nañ ma. Mhm. man yëguma woon décret bi. ma génn ak sama scooter ñu jàpp ma. Mhm. bañ ma jàppee ma ne ko chef ma ne franchement yëguma woon décret bi. mënuma mhm. décret la. ah ma ne ko léegi nu may def mënuma scooter bi mënul dem ma bàyyi ko scooter bi. du ma xëccoo ma dem ñibbi après ci sur la si lendemain ga laa dem fii nii wakaam lañ koy ranger le fépp soo ñëwee da ngay joxe ticket bi ñu la jox fooy bi ñu la jox ngay joxe nga ànd ak benn agent dem ba foofu mu dugal la ci scooter yi nga xool na ko sama bosa ngi nii mun na la jëlal fekk caabi ji moom moo ko yaa ñoom ñoo ko yor ñoo ko yor mais caabi ji bu ñu ko jëlee dañuy jël benn këyit nii dañ koy épingler waaw épingler ni def ci sa tur ak sa mm-hmm. léegi ma continuer ñu jox ñu ay affaires yoo xam te ne soit dinañu mën dimbali ñun ay ndaw leen nekk ci dëkk bi mm-hmm. xale kenn ko may jot waaw jot bi xam nga xale. sam papa xam na li ma kenn du ko may jot. l'oisiveté est la mère des sa doom bu école tëjee yóbbu ko mu jàngi daara. Mm. alxuraan loolu lañu ñuy wax waaw mm. wala mu dem jàngi métier parce que jot ku bari jot ñëpp lay jot. Mm-hmm. ñun ay ndaw leen. Mm-hmm. ñaata ndaw lañu arrêté ñu taxaw dawatuñu. tay mën naa toog man man en tant que président du ma ko digal kenn nag xalaatuma ko parce que damaa yor jabar yor yu doom. Mm. yaakaar ci man sama yaay samay papa ñëpp yaakaar ci man. tey ma doom. ñu ne xeex am na ma defu ma dara. Mhm. gis sa benn morom buy génn dem di taale rek nga bari jot rek topp ci. Mhm. tey nag bu ñu bu ñu amoon fu ñu tënk ministre bi ñu lancé ko appel Antoine gis naa ko muy dem fu ne mais na ñu dimbali ñun mu recevoir ñu wax lu ñu bëgg ñu en tant que ndaw dëkk bi quoi. Mhm. waaw. le président recevoir wu ne président recevoir woon nañu. ah bu leen président xam nga président ba mu ñu ba mu ñu recevoir li ñu ko li ñu ko jooytu woon faju na. mooy dañu bëggoon ngeen boobu dëkk amagul dara amagul. da ngeen bëggoon am possibilité di daw. dañu doon jàpp rek Dakar fu ñu tourné ñu jàpp ñu ASP yi jàpp gauche jàpp droite. Mhm. ba ñu ko waxee président jour boobu lañ ñu gëj a jàpp. waaw ah, mooy bi ñu waxee ne scooter yi amatuñu droit. de voilà léegi président tamit mayoon nañu 6 mois yoo xamante ni dañoo demoon miiti engins yi amul fay. ah bon <coughs> léegi nag loolu lañ bëgg mu relancer waat ko ñu miite suñuy engins ñu utal ñu ay kayit yoo xamante ni dañuy daw di liggéey depuis vendredi ba tey ñu ngi nii. ay ku nekk na ko xool ci boppam. xam nga man mii di wax yow nii tey ma wax la benn affaire tey des choses. Hmm. du lu may ndamoo du lu may bàkkoo waaye dama sama maam du Ndiaro yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ñu dañoo teel a. bonne nouvelle Sénégal gagné. moom laa lay wax ni Sénégal moo gagné 80 à 77 foo ko waxee. pourtant déggoo ma maanaam la ma doon bàyyi kii mu daaneel. sama maam du Ndiaro 80 à 77 on ok ñun dañu teel teel a dimbali. quart sama maam daf ñu teel a dimbali. maa ci xam dara. ñun dañoo teel a yéeg avion. Mhm. xam naa man dëkk yëpp dem naa dama xam ni li ngay def i Europe pour am. boo ko mhm. defee sa dëkk di nga am. Mhm. waxuma kenn na fi toog. waaye li ngay def sa dëkk dëkk jàmbur pour am boo ko defee sa dëkk di am góor góorgóorlu moo nekk fépp loo tàmmul fii doo demee fee doo ko def. xam nga tey nga toog waaye mais grand yoroo foofu téeméer may ma laal benn tabax fii grand may ma benn kaasu café waaye mais boo demee fii loolu ngay taw <laughs> non xanaa loolu am na lu lay fàttali de ah, Baye Fall léegi nag boo tàmmee fii fayit boo tàmmee Baye Fall <laughs> boo tàmmee fii ñëwee doyen ni muy dégloo tàmmee fii fayit doyen baat boobu moom xam nga ko doyen sama père la mu may dégg xam na li may wax boo tàmmee ñafe boobu lakkale ci kër gi nekk fayit di di ñafe sa vie di ñafe sa life mhm. boo yeggee fee da ngay jàpp ni fii nga nekk rek man dem naa dem naa fee demati damaa ñibbisi ñëw fii di ñafe encore une fois dañuy ñaan man lii bu méttee ba métti HLM xam nga li ngay wax nga léegi nee ragal pété day xañe wërsëg benn autorité lañuy gis HLM te sax du autorité yorul benn nombay tànk muy Cheikh Tidiane Mbaye. booy yaa ngi dugal bu ba bu